ci kaw route nationale bi ngeen seen ay mag ñoo xam ni ñi dañoo demoon di fayu ji seen pension ñu waroon leen ko fay bu yàgg ba léegi jotuñu ca ba mujjëw ñu lu dul di ñaxtu salaire bu normal sax yéex koo fay boroom ak tooñ la waxuma la ak mi nga xam ni ndeysaan mooy misère ndóol ndottoorol baat bi may faral di wax bari na ci ñooñu nga xam ne ñoom ñoo nekkoon di ñaxtu ñoo xam ni tey jii bu fekkee ne seeni doom màgguñu mën leen a dimbali ci jafe-jafe yu tar lañu nekk léegi jafe-jafe yooyu nga xam ni moom lañu nekk dawaleetoo yërmande li wolof yi di wax naan saraxatoo silmaxa di tuur ak ab yalwaanam mooy loolu ndax nag pension ak ni mu ñàkke solo ci nit ki ni mu ñàkkee solo ci ci tolluwaay waaye amee ko solo ci ki nga koy jox ndax moom dafa ne ko ngéej dafa ne ko siiw nga téye ko ba mu koy jaral di ñaxtu ndaw ñi nga xam ni ñoom ñooy doomi mag ñooñu nekk di ñaxtu yaakaar naa ne ñoom ak seeni soxna waroon nañoo bokk ci ñiy taxaw foofu ndax li ngay dundee bu ko nit yee danga am sañ-sañu dikk taxaw bokk ci ñiy ñaxtu ndax nag bàyyi sa bàyyi foofu mu toog ca këfin ba di di di def loo xam ni mag mënu ko ñu ci bari ci ñoom daanaka ku ci dem te amoo chaise boo toogee ca foofa sax toogaay ba du jekk lii ngeen di def day mel na ne la ma waxoon rek mooy dikk procesus boo xam ne bii dafa war lu war a am day am processus day am fu muy jaar ba am suñu boroom bu fekkee ne dafa namm dindi ay nit ci xolu doomu aadama yi faaw ñu jëf ay jëf yu leen di génnee ca xolu ñooña su bëggee ñu dugg ci xolu doomu aadama yi faaw ñuy jëf ay jëf yuy tax ñu dugg ci seeni xol ni ngeen di def dey nekk ci seen balaxal maddaa di saax-saaxee réew mi mel na festin de de de lienne ku xam lëg de lièvre xam nga li may wax kenn ku ci nekk di tibbe ndeyjoor ak càmmooñ lii xew ci saar bërki démb dégg ngeen ko ay milliards yoo xam ni kenn xamul fu mu jaar ay commission la ñuy wax Siré Dia mi nga xam ni moom moo doon directeur général poste yaakaar naa ne jóge na fa ah, est-ce que jóge na fa sax ndax moom réew mi ku fi daq def gilaawaali yow lañu ñu gën a fal ba muy nekk fii ca jamonoy campagne électorale ba ak ginnaaw campagne électorale bi li ngeen doon dégg ci ay milliards yuy naaw post su fekkoon ne ay oomam nekkul fii tey jii loola damay yaakaar ne kon dañ naan dañ ko ko sosaloon waaye tey fi mu ne nii poste yaakaar naa ne ca fa mu jëm dootul ñàkk a fay ay pensionnaire waaye ñàkk fay ay agent soo moytul fa jëm ñu fay liggéey soo moytul ca kanam tuuti ñoom dootu ñu fayiku lii nag ku ko gis cim réew danga xam ni réew mooma doxul ndax bi ngay gis situation boobu ay mag di ko dund am na ñoo xam ne ñii tey jii ñu ngi tibbe ndey joor ak càmmoñ ay nit ñoo xam ne ñii kenn xamul seen xëy kenn xamul seen gont kenn xamul benn activité bu ñuy def génératrice de de revenu nga séen ñu leen di tuddal ay millions ak i ci réew moo xam ne mii ña dàq liggéey dàq sonn dàq daq dàq nekk ca naaj ba mënuñoo faj seeni soxla moomu réew yaakaar naa ne mi ngi ci pant boo xam ne bii dafa mel na day bëgg a matal matal gi nag yaakaar naa ne ñi tax ñuy wax matal gi xam nañ ko ñoom asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu